benn baat ba. mu ne daa bari biir moom. bu waxee daa waxaat déwén. mooy Yeah, budal mag bi dafa pare. Pare. waaw non lii laa damay xaar mu wàññi bopp bi. hôtel bi hôtel bi foo taxaw fi jël kuréel tuuti kuréel tuuti arrêté leen tuuti. waaw da leen tuuti ah arrêté leen tuuti mais leen ko tuuti. yëngal kuréel boobu yëngal kuréel boobu.

Génération bu mu mënee jagalum nar càndum ne ma ndam rek la nar. Thank you.

mooy doomu xalaat dëgg la Yore ñu xaar bu dee bu dee bu dee balaa mu dee am waaw dimbale ñu ngir yàlla waay dimbale ñu ngir yàlla waay. Thank you. wala bu dee xale bi voilà.

dañuy làmb tey amul kenn tey Gane Seras numéro 2 am nañu tous. ana Gane Seras. ana ñu ànd ak Gane Seras. ana ñu ànd ak Gane Seras. ndax Gane Seras numéro 2. Toulouse. Alaaji Lamine Samba. Borom Jabante Let's go.

Ousmane Faye se prépare